Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification. Allez, on commence. nuyu nañ leen asalaamaaleykum internet Sénégal Media TV comme ni ñu koy defee saa su nekk nag tey jii nag ñu ngi ñëw fii ci Parcelles Assainies ci point Paris foot bi li ko waraloon nag mooy léegi nemmeeku nañ ne jeunesse bi dañoo accro trop ci lii nga xamante ne ni mooy Paris foot. ba am na sax ñuy naan dañoo dem ba dafa doon drogue ci ñoom mënuñoo toog déstabiliser jouer pari foot xale yu ndaw yeeg élèves yeeg ñëpp nag ñu ci biir moo taxoon nag tey ñu ñëw fii ngir waxtaan ak ñoom ci fi jëlee ndax am na ñoo xam sax dañuy sàcc dikk fi indi seen yaay di ñëw fi di leen indi problème ñu jëlee ko fi moo gën quoi. dépend rek waaw noonu la demee te lool bu ko jeunes yi si gisee xam nga da leen di influencer ko waaw noonu la demee waaw. léegi yow ndax mën nga jox xale yooyu ay conseil pour ñu mën a gën a xam fu ñuy teg seen tànk. conseil yi ma leen di jox moom mooy ñu dem jàngi quoi waaw ñu dem jàngi école wala ñu dem jàngi métier waaw conseil boobu loolu laa leen di jox quoi parce que métier du suulu quoi. métier moom du suulu quoi parce que carte xam nga rek boo ci gagné tam xaalis boobu nga ciy gagné après xaalis boobu du taxaw waaw mais bu dee xaalisu métier la da boo ci amee 1000 francs da lay lew waaw maanaam day barke léegi yow lii ñu tuddee pari foot gis nga ni dañoo dafa am yeneen anam yi ñu ko war a mën a taxawalee pour mu des ci réew mi wala yow dangaa war a gis ne dañ ko fee war a jëlee. non loolu moom loolu moom mun mun na des ci réew mi quoi parce que am na ñu muy dimbali tamit am na ñoo xam ne ay responsable lañ quoi yor nañ métier tam ñu ngi liggéey mais tamit ñu ngi ciy xoslu di ci ut seen xaalis tamit. waaw loolu moom mun na fay des quoi garaawul waaw man moom loolu laa gis quoi. maanaam mu des fi mais ñu xool am nuñ koy defee comme parce que gis nañ ne xale yi def nañ moins de 18 ans mais respecté wuñu ko loolu mën nañ cee jël ay kii pour ñu mën koo respecté ku amul 18 ans doo ko joué. non non ku amul 18 waroo ko joué mais Sénégal lañ nekk nag Sénégal moom gaan amul 18 ans amul 19 ans affaire yi moom mooy loolu. ndax gars jàpp xaalis rek ñu ne xaaral ma ñëw. yow élève nga. élève laa kay. léegi yow fan ngay jëlee xaalis bi ngay parier. des fois ma sama xaalis njëkk wala ñu génn nit yónni ma may ma xaalis ma ñëw indi ko fii wala loolu nag. yaa ngi gagné. waaw oh, des fois gagné des fois nga perte. nga gagné gagné bu bari. non non du bari bari perte bi ah perte tamit nga perte lu bari rek wala lu tuuti rek des fois nga perte ay 1000 francs ay léegi yow lan ngay wax euh, ko fi maanaam naar bi nga xam ne comme ni ngeen ko moo fi teg par exemple yow selon sa avis da nga gis ne dañ ko fi war a bàyyi respecter normes yi comme moins de 18 ans war ko jouer wala da gis ne dañ ko fi war a jëlee définitivement. ah ñu ko fi bàyyi respecter ordre yi rek moins de 18 ans moom mooy yoon waaw. bu ñu ko respecté yow doo jouer. waaw ba tey mën na ne ndax kii nii borom pari foot bi si moom pari foot yaakaar si amee xaalisam. ci pari bi. man xam sama benn mag mooy gérer fii nii damaa damaa jiwoon dama xam may quoi. ah sa mag mooy gérer jour boobu daf la ko may. Ah. nga parier. Ah. léegi yow naka nga gisee lii gis nga ne dañ ko fay war a dénne wala dafay war a des. man booy ne ñu ñu fi ñëw mais duñ jàpp de. dañuy ñëw dañuy ñëw chaque jour ñëw musuñ jàpp sans wara. dama ne ndax gis nga ni pari foot bi. Hmm. dañ ko fi war a génne wala dañ ko fi war a bàyyi respecté norme yi moyen de 18 ans bi. waaw mooy a daw kañ. waaw barke yàlla ma conseil xar seen xaalis ndégg bi ñuy jël di nga paree ñu baaxoo wala seen xaalis yaa ngi saag yooyu noonu loolu baaxul ñoom mooy de rek. internet bu Sénégal Média ñoo ko gisandoo tey nag comme ni ñu ko gisee ñu ñëwoon nañ fii la ci ci point par bile ngir waxtaan la nag ñeel nañ nag dañ ko fee wala Bienvenue sur notre chaîne YouTube, le meilleur de l'actualité africaine et internationale. N'oubliez surtout pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.